قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل ولم يرسل إلا رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى بآثارهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي ني ñuy seetaan fii ci al hidayatu tv ñu ngi leen di nuyu di leen wax ni kullu aamin wa antum bi xayrin koor gi nga xamante ni ñu ngi ciy dugg ci bismillahi rahmaani rahim yal nañu yàlla defal tawfiq ak taysir ba ñu jeexal ko ci alhamdulillahi rabbil alamin waaye di jiital ci ziyaaraat yeeg yépp nag suñu kilifa diine yi di ñaan yàlla yàggal leen ci suñuy kanam yàlla dolli leen jàppandal dolli leen defal tawfiq ak taysir ci lépp incha allah bu ko defee rek ñu ñëwateeg yéen ci mbaxu borom bi subhaanahu wa taala ci suñu émission yi ñu miin di ci weccante ak yéen ñu tudde woon ko madrasatu ramadan maanaam école du ramadan bu ko defee rek ñu jàngatantu lépp loo xamante ne rek yaakaar nañ ni bu dee benn kàddu sax nit mën na ko jël jariñoo ko te yàlla tax bu ko defee bii nag dañu waxoon ni dañu am mam bu baax mu am loo xamante ni wax na ko ci jàngat ngir bàyyiloo ca njaboot xel wax yooyu mooy wax bi mu wax muy suñu maam Seydil Hadji malik radiyallahu taala anhu wa arda damay faral di wax nag ni Sénégal maam yu baax rek lañu yàlla may bu ko defee ci biir maam yu baax yooyu noonu war nañu toll ci ñor foo xamante ni bu ñu tuddee benn maam ñëpp xam ni tudd nañu maam yëpp bu ñu tuddee benn maam rek ñëpp yëg ci ni maam yëpp la tudd fi demaguñ ñun ba toll foofu dañuy yëg ni rek am na lu ñu manqué parce que la ñuy manqué dañuy yóbbu ci fanatisme ak yeneen yoo xamante ni yooyu lay nuróol bu ko defee moo tax euh, yàlla am na lu mu may suñu réew mii di Sénégal ca jamono ba nga xamanteni eh, fi ci rew mi ñenti gox yépp manam buñu doon xool les quatre points cardinaux dañuy yëg ni mën nañ ni fenn fu ci nekk mën nañu tudd benn maam suñu maamu murit suñu maamu xaadir suñu maamu laayen suñu maamu tijaan ñi nga xamante ni ñoo ndar kap pour réew mi ci ñeenti côté yépp lu ñëwati rek ci digg bi la jëm bu ko defee li nekk ci digg bi nag lu cay safaan rek ñu génne ko ci ba set lépp lu ci yiwit ñom ñu taxaw ba fexe yiw woowu di gëna yok kon yalla na leen yàlla yokk di dolel ñi ci jitu tamit yalla na yàlla yokk leen leer euh suñu mam bobu wax ni bi fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóge jibril da fi ñëw fukki yoon jeli fi fukki mbir ñu ni ko yooyu mooy yan mu min ba'dihi nazilun ya an fa yarfau yaa fi raf'ihi qul fasadul xalqi wal quxami suñu maam dafa wax ni bi fi yonent bi nekkee muy première génération ñu mën ko tuddee noonu nee na booba jikko yi dañu rëy dañu duuf jikko yi dañu yegg ci xiima ba fépp fu ñu doon xalaati jikko bu sell rek nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defoon na yitte ba jikko yooyu réunir ci njabotam ndax liko waral moy ni bu'ithtu li utammima al akhlaq mission yep moy fexe ba nit nite mission yep mom sallallahu alayhi wa sallam mooy fexe ba nit mat yàlla njabot suñu mam ni nak ginaaw buñ fi joggé mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jibril daf fi ñëwaat gannaaw ga jële fi fukk yoyu mu jele neena jikko yu yaq rek ci la te da fi jele fukki vertu yo xamanteni jikko yu mat la yu ñepp soxla bu ko defee loola nag sa bu jógee rek yeneen na remplacer te yakoy remplacer moy yu ñuy baña tudd kon loolu dañ ci yëg ni ci jàngat rek donte que ni ay leçon la yo xamanteni xamna ay jàngatantu yu gaaw fexe ba donte que benn kaddu ñaar doomu adama man ko jariño rek lay doon te bo ci jël rek man nga ci waxtaan ay weer kon rawati nañu bëgg jël fukk yooyu benn bu ci nekk rek ñu waxtaane ko ci benn leçon incha allah mu ni fukk yooyu noonu mooy yumnun wa xubbun wa raxmun maadilun wa xayaa sabrun wa zuhdun saxal qur'aanu bisalem mam ne na fukki yi la fi yonent bi jëli te fukki yi mooy jikko yi gën a cher ci jikko yëpp mooy jikko yi gën a baax ci jikko yëpp bu ko defee nag yenn ci borom xam-xam yi doon teka ni détaillé du ca xaj ba mu jeex dina dinañuy xool ba xam naazil bi jibri la ko moom mais rafon bi yi ñu yëkkati moo ko moom mais benn bu mu ci manti doon rek la ñu ciy dégge mooy ni jikko yi ñu fi jëlee ndax dañ koy dellu ci diggante nit ak moroomam wala dañ koy dellu ci diggante nit ak boroomam bu dee ti ñiy yëngutu ci wàllu maarifa ñoom jikko buñ ko jëlee rek diggante nit ak borom bi lañ koy delloo bu ko defee yar bi yëpp ci côté boobu la koy doxale ngir mat yàlla njaboot gannaaw ga nga xamante ni moom dafay yëg ni nit mi nekk fii moom bis bu demee bay def yitte pour mat yàlla njaboot rek mooy ni ndekete li ko féete suuf def na ci yitte ba pare mais bu fekkente ni ci beneen niveau bi moom mën nañ ko delloo ci diggante nit ak nit mu ni jikko ba ca jëkk nag mooy li ñuy tudde al nu mu dellu ci barka al barka wala ñu ni bara baraka barke rek la olof di wax nag waaw boo demoon ci halpulaar yi sax barke lañ ko tuddee bu ko defee da yëg ni ay baat la yoo xamante ni ba tey amalaguñ ko prix wala ñun boog jotaguñ ca piri yooyu noonu barke barke buñ ko tuddee kenn ku ci nekk dana ci war a déggee ay njàngat bi ci njëkk mooy lan mooy barke ñu ni barke day bu ñu delloo ci arraghibul asfahani moom daf ni al baraka daal bu ñu ko tuddee mooy thubutul xayril ilahi fi shay ne ne yiwu yàlla fu mu sax rek loola barke la yiwu yàlla fu mu sax rek loola mooy barke mbir mu mu dugg rek mbir moomoom mooy barke bu ko defee ñoom ñu firi ko ci ay firi yu yaatoo yaatoo yaatoo mais danañ ci dégg ci gàttal ñun buñ koy tënk di wax luy barke mën nañ ni barke daal mooy li nga xamante ni ci lu mu dugg rek duufal ko lu mu dugg rek def ci yiw lu mu dugg rek def ci mbaax waaye li mu dugg mu sekki ba pare waaye ci yiw lañ koy jëfandikoo waat kon ci gàttal mën nañ ni loolu mooy barke kon dangay ngay yëg ni lépp lu barke duggul rek loola noona nasax na lépp lu barke génn tamit loola amatul valeur bi nga xamanteni mom lañ doon yaakar ci mom motax yenn say dinañ dégg al imam ash-sha'rani muy jàngale lu mel noonu ci barke waaw al imam ash-sha'rawi bok mom daf ni buñu waxé al barakatu wala mu delu ci al yumn muni al barakatu dal jundun khafiyun min junudillahi yursiluha liman yasha nee na barke daal buñ ko doon jàngate jàngat dañuy wax ni moom soldaar la ci soldaar yi borom bi subhanahu wa taala waaye soldaar la boo xamante ni bu invisible la bët mënu ko teg bët mënu ko gis waaye nag du te mission bu mu war a dox moom barke yàlla dina fexe ba fa mu bëgg a yebal mu yegg fa waaye nag du lu ñuy teg bët wala ñu koy dégg ak nopp lu dul ni bu bu bu ko jëf rek ñuy soog di xam ni lii de ma nga ca mu ni moom barke barke moomu moom barke bu fekkente ni dafa wàcc ci njaboot waaw bu wàccee ci alal wala mu wàcce ci njaboot moo tax mu ni fa ida fil maali aktharatu bu ko yàlla defee ci alal nee na alal ja day bari ba pare am njariñ nee na bu ko yàlla wàcce ci li nga xamante ni si moom mooy doom nee na doom jooju ñëpp dañuy xam ni doom ji am barkeel la waaye lu mu dugg tamit loola di yiw lu mu dugg loola di mbaax waaw nee na wa fil jismi qawwatu bu ko yàlla dugalee ci yaramu doomu aadama nee na doomu aadama boobu noonu yaram ba dafay commencé dëgër waaw bu ko defee lépp lu yàlla soxla ci yiw rek moom loola daf koy mën a mottali def ca kemtalaayu kàttanam waye nee wa fil qalbi nak bu fekente ni barke dafa wàcc ci xolu doomu aadama nee as'adatu da fay texel xol bobu nona mu nek xal xol bo xamanteni xol bu tey la xol bu lab la xol bu bëgg yàlla la ta sopp ko waaw xol bu bëgg yàlla ta top ko waye bu ko yàlla jëli mom barke nak wacc ko ci li nga xamanteni ci mom moy heure temps nee bu boba amratu daf koy dundal bu ko defee moy tax doomu adama bi temps bu cher boobu noonu toujours daf koy dugal daf ciy jëfe li nga xamante ni mooy ni yàlla bëgg waaye di ci moytu li nga xamante ni si moom la yàlla bañ du yàq temps fenn du tardel boppam ci leer dara waaye lépp lu mu yëg ni rek loola dina bijji njëriñu àdduna daf cay sonn ngir jariñoo ko ngir ni waxtoom du ko ñàkk fenn kon da ngay yëg ni moom barke moomu li ñu ciy déggaat mooy ni fan lañ koy jànge fan lañ koy mën a wute bu fekkente ni lu ñu yëkkati la lu war a dem la pour ñu indiwaat ko naka lay mën a demee ñu ni yi ñu tudd yëpp pour ñu indiwaat ko benn bu ci nekk foog njaboot gi ko soxla mu am kilifa boo ci bëgg te amoo kilifa rek doo dem boo ci soxla te amoo kilifa rek doo dem ndaxte kilifa mooy li nga xamante ni moo la mën a mottali li nga soxla boo ko ñàkkee leneen loo dugg loola échec la moo tax suñu maam doon wax naan ku amul kilifa doo dem waaw ku amul kilifa doo dem ndaxte ki la lay koy xañ sax di la jéem a xam loolu leneen lu dul kilifa moom dafa am kilifa ba pare ndax am na ku muy diglu kenn ko di gis rek mu am ku muy diglu la nga cee jàngate mooy ni am na kilifa bu ko defee barke nag bu nit ki amee kilifa ba pare kilifa mën na def yitte ci weeru koor mu koy dugalal la ko manqué ci barke ndax mën nañ ko fàggoo ci weeru koor te mooy nit ki ni muy bàyyee xel ci ay julleem ni muy bàyyee xel ci boromam ni muy bàyyee xel ci la mi lekk ak la mi naan di xool ba xam laab na wala laabul cellate googu muy wut moo koy may barke ndaxte yàlla buur bi subhanahu wa taala bi muy jàngale barke def ci tudd ñaar ñu munta ñàkk moy al iman ak at taqwa bu ko nit ki amee lépp lu mu dugg ñu mën ca séntu barke bu ko nit ki ñàkkee lépp lu mu dugg tamit kenn du ca séntu barke moo taxu borom bi subhanahu wa taala wax ci alquran ni walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fataxna alayhim barakatin min assama waaw mu joxe exemple ci aw ak kuréel ab dëkk ni bu fa yitte amee ba ngëm yegsi bu fa yitte amee ba kenn ku ci nekk di bàyyi xel boromam nee na loola bu amoon rek ñu lu ñu lu ñu laal rek loola yomb moo tax yonent bi doon wax sallallahu alayhi wa sallam ni barke nekkul ci mu dem ba bekkoor am ngir ni taw wàccul waaye nee na man yàlla buur bi subhanahu wa taala mën na taw ba lépp ni gàññi ba pare mu téye la nga xamante ni si mooy dundal mu téye la nga xamante ni si mooy yaatal mu xëye téye la nga xamante ni mooy barkeel kon da ngay yëg ni kon barke daal mooy lépp loo xamante ni bu ca doomu aadama ba jóge duggee man ko jariñoo ba mu jeex waaye bu ca duggee amul njariñ rek lumu mu yaatu yaatu barke génn na ca kon loola dinañ ko fàggu ci biir weeru koor ci suñuy jëfalin ci suñuy doxalin ci suñuy waxin yàlla ñu ci yàlla defal tawfiq ak jàppandal xam naa foofu la ñuy yem ak yéen ci suñu première leçon di ñaan yàlla mayaat ñu daje wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل